bamba woona waa géej bamba woona waa jéere ñëw ñu dem Tuuba wuy ji muudu Mbàkke moom bamba woona waa leen ñu dem Tuuba wu ji Muudu Mbàkke moom baare yàllal baare yàllal baari sëñ Bamba woote na géej am ak jéere sëñ Bamba nee na leen sant le ma yàlla sa borom la ko dale ci gannaar ba ci gëléem bul xeeb ganaar bul yéem gëléem sëñ ba ba nee na leen sant leen ma yàlla saa borom yéen leen sant leen ma yàlla saa borom sëñ Bamba mosoon naa fanaan jeewal ba muy dem ca jeese sin ñu won ko fa mboolem lay xew xaloo xew ba dem Tuuba mënoon naa waññee ko foofa waaye kon du am mayem yi mu am booleeg jaloore yi Sëriñ Tuuba andil nga yow Seex Bamba kii yu xel da jul Sëriñ Bamba tabax nga fi jàkkay doj juddul mabbu fi Tuuba andil nga nu ay wërsëg juddayaanu jàmmaloo danga togg sottal jox nu muñ yow ba dem Tuuba andil nga nu mbaaxaan ak joxor mo rek kumba caam ci islam te waajoon nan ba jëm daaru ak Tuuba nga nu ay wërsëg yu de yaanu jàmmaloo danga togg sottal jox nu mu yiw ba dem Tuuba ataaya kafe taalaale baawoon xamul koon ndax xaara xorom lañ daa baxal door a xëy dem Tuuba alarbaag bi béer lañ daa demal doomi soxna yow nga jox ñi mënuy daw di sellal ba dem Tuuba koog yow dañuy nasaraanu jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Tuuba karaamaati xar baax ak wilaayaati mbooti xol ku leen mës boo ku dul yow sëriñ Tuuba ku dul yow da daa boo ka da koo kër ngëm yàlla kee ka yàqaatee ka fàtte kër yi Tuuba nga yor it lambo rahmatullahi yaale li ngay muñ te mën koo faj amoo kem sëriñ Tuuba sëñ Bamba ku lay zuru def laa boo geesu woon nu dee amul um nga soo daanak ba yaa diina Tuuba xamal la baafale kumaanam yi ak kàngam yi xam nan la bis ka juur ak bawal min Saalum ak Fuuta Jolof isey may la ñuy yaay géej gi wër Tuuba girub tër bi yaañi xaw sub ko def fa jug aajo nit ku ñuul mos ko fii Tuuba ku ci bañ a ànd ak Bamba ku ci bañ a ànd ak Serigne Touba naa de ku gumba dugg si jant man yéem naa ci bañ a ànd jant man yéem naa man yéem naa man yem naa sëñ Bamba